mouvement F24 dina doon acteur bu am solo ci langu politique bi ci atum 2023 bi moom boobu lay kuréel dal dinay boole ay téeméeri téeméeri mouvement citoyen ay organisation yu bokkul ci nguur gi ak ay partie kuje gi bi gën a fës ci Sénégal poiwam dina ko may mu am influence ci wàllu politique wàllu société bi ak wàllu culturel bi mouvement M24 boobee nag mun naa dox ay jéego yu am solo ngir fexe ba dialogue politique bi ak social bi dellu siwaat ba mu juddoo mouvement F24 boobee dal dinay fësal li ko tax a jóg boole seen doole ci biir Sénégal gi yépp ci ndorteelu weeru mai 2023 plan d'action bi ci topp bu MF24 mooy mu jël lépp luy mbir bu ñeel politique ak élection yi mbirum troisième mandat bu président de la république Macky Sall wàllu parrainage ak it fexe ñu amal élection présidentielle yu tegu ci démocratie leer te ànd ak njub MF24 boobee tamit mën naa amal taxawaay bu am solo ci fexe ba jaloog am ci diggante pouvoir bi këru kujje gi ak ñi yëngu ci wàllu société civile bi opposition bi ak pouvoir boobee ba tey dañuy xiiroo ak a ŋaayoo bu nekkul ne kenn ki moo bañ ñu amal dialogue jaloog boobee dañu koy dal di dakk mouvement F24 moom mën naa yombalal ba ñi yëngu ci langue politique bi yépp delluwaat gisee bu fekkee ne mfnkat 24 amal na lu ni mel maanaam fexe ba boole leen ñoom ñëpp. dina doon roue de secours boo xam ne mooy dimbali dialogue politique ak social bi nga xam ne dafa paan ay at a ngi nii waaye xeexum troisième candidature bi moom mën naa yàq mission mouvement F24 ndax njiitum réew mi moom mooy candidat bi nga xam ne moom la alliance pour la république ak yenn alliés yi bëgg taxawal ci noone majorité présidentielle du nangu benn yoon ñu dal di dindi candidature président de la république bi moo tax dafay jaadu ñu xaar ndax candidature boobee nangu wala duñu ko nangu des na ci juróom-ñaari sages yi nekkee ca conseil constitutionnel bi Sénégal nag boo mooywul at bi jiitu ñu amal élection yi dina yëngu loolu ci côté social bi waaye tamit ci côté politique bi mu mel ni rek ba ñuy waajal élection 2012 fukki at ak benn ginnaaw gi xew-xew yi fi amoon ci 23 juin ba léegi mu ngi des ci xelu askan wi